di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak ay njabootam ak ay àndandooram ak képp ku topp ci yoonam ba keroog bésu penc yal nañ ci yàlla boole ginnaaw loolu ñu leen nuyu nuyoo di gën ci nuyoo yi muy nuyoo ñaan jàmm ak yërmande ak barke yàlla subhanahu wa te mooy assalaamu aleykum wa wa barakaatu ginnaaw loolu ñu leen dalal Eh, di leen tatagal commencé ci dalal boobu eh, almudira Seyda Kumba Gassama eh, di dalal almufattish oustaz Mouhamed Lo ak di dalal mboole seen invité commencé ci parents d'élèves président des parents d'élèves des ci ñoom jox ko mu jàllale ko ci bépp parent bu fi nekk di nuyu asatis mboole seen asatis yu fi nekk di leen nuyu di leen massaw ah, ñu leen di jéggalu tamit ci retard yi nga xamante ni am nañ ko di leen massaw si coono yi nga xamante ni daj ngeen ko ci bi ngeen di ñëw ak bi ngeen agsee yëpp kon pour bañ guddeel gën a tardé dañu daal di dugg ci programme bi dañu woo suñu mbokk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 يعرضون la fan wu gudd wéral baat yi ñu yàgg di bànneexu ci baat bi kon na loolu foofu la ñu ubbee programme bi nii lay tëddee dina am récital de Coran Alpha Omar dinañu ko defal après ñu am discours des élèves Thioro Sonko moo koy def après discours des enseignants Oustaz Kanté moo koy def discours APE après mu am discours inspecteur arabe incha allah loolu la ubbee incha allah après bu ñu demee dina am animation euh, yoro après prestation du préscolaire crèche bu grand euh, garderie ak petite section après ñu def euh, prestation moyenne section après prestation prestation grande section bu ñu demee ba 11h30 jàpp midi mot de bienvenue de la directrice incha allah moo dina ko taxawee. après moo am animation Mahmoud mooy taxawee loolu. bu ñu demee ba douze heures jàpp treize heures trente dana am prestation élémentaire récital du Coran CI ak CP récital du Coran CI euh, ak ak sketch dinañ ko def après mu am récital du Coran CE2 bu ñu demee nag jàpp treize heures trente jëm quatorze heures incha allah dinañ def euh, remise de diplôme ak ñu def euh, droit daal di tëj incha allah loolu mooy programme bi. Euh, ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu jàppale ñu yombalal daal ñu ko ñu daal ko jeexal ci jàmm ak salaam kon euh, ginnaaw loolu ñu Alpha Omar Ba Alpha Omar Ba.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

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم Masya Allah, barakallah fit. Takbir. Ousmane pour euh, discours des élèves. À l'occasion de notre conférence de fin d'année. l'intérêt tout particulier que vous accordez à nos études. Nous vous en remercions sincèrement. Permettez-nous, chers parents, de louer le courage et l'engagement de notre directrice et de son personnel. tout au long de l'année. Ils n'ont ménagé aucun effort pour nous donner un enseignement franco-arabe de qualité, sont fiers d'eux. Cette fête sera aussi l'occasion de vous montrer quelques facettes de notre riche patrimoine scolaire. Nous vous demandons, chers parents, de nous accompagner davantage pour achever le travail de calque amorcé par nos enseignants. Quant à vous, chers camarades, passez de bonnes vacances, mais n'oubliez pas parfois de jeter un coup d'œil sur nos documents de classe. Excellente fête à tous. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie. ahlan biman atana bi tahiyatin wa salaamin bi qulubin mil'uha almahabba wa afidatin tanbidu bilmawadda wa kalimatin tabhasu an ruhi al-ikhwa fa naqulu lakum ahlan wa sahlan ahlan bi qulubina qabla hurufina bi kulli saadatin wa bi kulli izzatin halalna ahlan wa wata'na sahlan yaa ahlan bikum bayna axwaanikum wa axawaatikum fa kulluna amrun bi an tajidu huna maa yuscidukum wa yutayibu xaatirakum wa natamanna lakum altawfiq wa mazidan min altawajjuhi wa axiran nukarriru altarxiba bikum wa nantadiru jadidakum almubda maa xaalisi sukrina wa taqdirina Monsieur son Excellence, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de, la, de Dakar Plateau, Madame la directrice de l'école franco-arabe Al-Huda wal Furqan, chers enseignants, chers parents, chers invités, chers élèves, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Notre établissement a eu l'honneur de vous accueillir le 30 juin aujourd'hui l'UCAD La direction et le personnel tiennent à vous remercier, vous, et pour la confiance que vous nous avez accordée. Nous vous remercions également d'avoir pris le temps de vous familiariser avec nos services. Nous espérons que ce premier, rendez-vous ici à la salle de la conférence de l'UCAD 2, fructueuse, a été pour nous suivre à cette rencontre. Comme nous en avons discuté, notre établissement est l'établi, la discipline, le courage, le travail. Nous rappelons que nous tenons à notre entière disposition pour toute information supplémentaire. Nous sommes bien évidemment disposés à à vous rencontrer lorsque vous en exprimez le désir afin de, vous, euh, afin de toujours mieux vous satisfaire, Inch'Allah. Excellent fête à tous. Nous vous remercions. Merci beaucoup. شكرا يا أستاذ على هذه الكلمات القيمة الجميلة dañuy continuer ci programme bi di euh, dem ci discours APE sant yàlla bu ñu gisee rek di sant ay taalal wa sallam ñu leen di nuyu seen tur ak seen sant di leen dokkeel fi liñ fi tase liñ fi tase mooy dañ suñuy doom suñuy sët ñuy def conférence yàlla mooy la ñu def ko daaw fekk ko ren yàlla yàlla mooy ñu fekk ko déwén kenn bañ a manqué loolu weesoo dañuy remercier une association parlementaire bi yàlla def ma jiite ko. waaye ñu ma koy jiite yëpp ñu ma àndal ñu ma yombalal parce que ma yombal lool kon du mën a nekk yàlla am bu baax a baax liggéey nag lépp ku jàppale école naan nag. élève bi nekk école bi di jàng am na ñu koy yebal mu ñëw ñu ay kilifaam kon yéen kilifa yi ànd ak jur xale yi leneen di ñaan ñun tam ngeen mën a ñëw pour gën ñoo jàppal loxo a am ay membre rek moo ñuy gën nag bu baax a baax Adja Kumba ak direction bi ak personnel bi école bi yëpp yàlla am fay yàlla leen yàlla fay lépp loo leen bëgg rek yéen a ko xam yàlla leen ko yàlla defaral njaboot gi nag yàlla leen yàlla barkeel si daal jeex yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu amoon ñu wax si gàttal surtout association parents d'élèves pour ay remerciements ak ay gërëm jërëjëf. maa ngi koy xalaat ak jamono maa ngi ñëwaat. Ah. jërëjëf jërëjëf yàlla ànd bi yàgg te dëgg law ah, balaa ñuy dem ci discours l'inspecteur euh, arabe monsieur l'arabe muy euh, oustaz Mouhammad Lo dañuy ñaan góor yi ñu toogee benn côté jigéen ñi aussi toog benn côté ñaan góor yi ñoo ñu toog ci benn côté bi ñu bañ a jaxasoo ak góor ak jigéen incha allah lii leen di jaajëfal kon dañuy jox kàddu gi suñu inspecteur al mufattish oustaz Mouhammad Lo faddal mashkouran asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bis bi nga xam ni bis bu am solo la bis la boo xam ni dañ ciy teral ci seral xoole sunu xale yi nga xam ni diirub juróom-ñetti weer ñoo ngi doon jàngoonte ak coonoy jàng coonoy yar jàng moom nga xam ni yéen parents d'élèves yi soxla ngeen ko ci seen doom yu yi nga xam ne damay wax saa su nekk nii diggante parents d'élèves ak école dañoo war a di di jàpp ndax parents d'élèves yi dafa dagg ci moom lu am solo dénk ko daara yaakaar ci daara ji yaakaar ci ay doxalinam may wax ni bu parents yi mënoon li école bi def du ñu jël seeni doom di ko yóbbu ci école di ko dugal ca daara ji ndax ñëpp xam nañu diggante euh, bàyyi ak doom ndey ak doom ñu ko fonke waaye parents yi bu ñu jëlee seen doom ak ni mu toll seen xol ak li ñu yaakaar ci ñoom ñëpp jël ko dénk ko Euh, école al huda wal furqaan loolu dañuy wane seen kóolute waaye dañuy wane seen yaakaar ci njàng li nga xamante ni war nañ ko faa am ak yar bi nga xamante ni war nañ ko faa am kon li ñu xaar ci jàngalekat yi ñooy ñu xam ni xale bii kat mooy ki nga xam ni mooy jiite jumaa yi ëllëg mooy ki nga xam ni moo war a yare ëllëg mooy ki nga xam ni moo war a jiite réew mi ëllëg kon ñu fonk ko xam ni lu lu lu cher lañ leen jox loo xam ni kenn waru koo fowee kenn waru koo caxat-caxatee kenn waru koo yàq looloo tax direction ak ñi nga xam ni ñooy école Al Huda wal Furqan bokk ci école yi nga xam ne dañoo nekk euh, Dakar Plateau ñu ràññee leen ci organisation bu leer ak njàngale moo xam ne wax dëgg yàlla saa su nekk ñoo ngi def ay ngóora ay jéego yu am solo ci ci yokku mën-mënu jàngalekat yi ba ñu war a mën a euh, tàggat xale yi comme ni ñu ko bëggee inspection bi di di di xool rek performance bi nga xam ni moom lañuy def ci qualité bi nga xam ni euh, jàngalekat yi ñoo ngi koy def nga xam ni lu diiru ñeenti at ci ginnaaw rek euh, réaliser nañ fi lu tolloog ñeenti diplôme professionnel kon ñoom ci wàllu tàggatu ñoo ngi ci def jéego yu am solo kon ñoo ngi ciy félicité euh, direction bi di ci félicité maître yi mais itam di ci félicité xale yi ak parents d'élèves yi ñun nag suñu war wàll bopp li ñu man mooy taxawu école yi euh, fexe ba xale bi leen jox ñu saytu nan lañ ko yore ndax kat état dafa dagg ci ay compétence am ci ay mën-mënam dara jox leen kon bu leen joxee muy xale Sénégal bi fu mu mënti nekk muy public ak privé ñun dañuy war a xool ba xam yar bi ñu war a def ci ñoom njàngale bi ñu war a def ci ñoom ñu ngi ko ci def wala de école bi nag bokk na ci école yi nga xam ni saa su nekk euh, ñun ñi dinañ ko tànn pour am ay formation yi defal ay jàngalekat lu sax ñu tànn ko nekkul hasard dafa nekk ci lu jëm ci organisation. waaye yu jëm ci wéyal li nga xamante ni mooy euh, tàggatam ak njàngale ci euh, ci Dakar Plateau looloo tax ci turu IEF de Dakar Plateau muy monsieur Bathie gay euh, ñoo ngi félicité parents d'élèves bi encore ci seen njiit bi nga xam ni def na fi ay discours bu am solo di félicité itam idaara bi ci initiative yu am solo yi ñu def ndax bi ma toogee léegi rek maa ngi wax ni nit nit ku nekk dafay bëgg di jëm kanam waaye nit ku nekk dafay war a bëgg lu baax ndax inna allaha tayibun wala yaqbalu illa tayiban sunu boroom dafa tey bëgg lu dul lu tey sunu dafa rafet bëgg rafet mën nañoo tànt ay tànt yu yoo xam ne dañ fay nekk mu tàng jër def ñu ko waaye dañuy wut ay place yoo xam ni dañuy jëmmal li nga xamante ni daf nañ ko ci xale yi kon loolu ñoo ngi leen ci félicité bu baax di ñaan sunu borom yokk seen kàttan di ñaan itam parents d'élèves yi ñu gën a jàppale daara ji ndax doo am sa doom dénk ko daara dénk ko école mu see góorgóorlu euh, nit ñi di ko seere loolu def ko wane ginnaaw waaye lii wane na ni euh, jàppale ngeen daara ji bu baax a baax ñu ñaan sunu borom loolu yokk loolu bañ a dog waaye ñaan direct sax itam euh, fi ñu jaar fi a jaar ci war a xale yi ëllëg ci cëppaandaw la euh, parents yi bañ ñoo jëppi kon loolu lañ leen ñaan di ñaan sunu borom mu mottali ko ci daara bi yóbbu ko ba mu doon secondaire ba doon eh, eh, moyen secondaire eh, ba doon lycée ba xale yi dem université indil parents yëpp lépp luñ soxla lépp luñ soxla yàlla man na ko yàlla na ko def ci xale yi wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, kon dañuy continuer li nga xamante ne mooy programme bi dañuy dem ci animation bi. animation Yoba. moo ko war a taxawee. اعتدال jangama war man mi bagaraw jangama may jariñ fini ak fañu jëm loo doonul nongam doo dooni والفرقان di sant xamdan lillah ñun buur bi may ñu fekke waat li di leen dalal yéen suñu gan di leen gërëm ci seen teewaay fii ñaan mu ful seen jéego yiw yi ñu fekke waat li ay at yu bëri jàngama war man mii di am ndaw jàngama war man mii bëgg raw moo may jëriñ fii nii ak fa loo doon nangam doo doon ni sëriñam di sant boor moom mii ni booleel ci waa école Al Huda wal yàlla allah. ñu ngi lay ñaan yow yàlla allah. nga jéggal ñu. sunu bàkkaar. nga jéggal ñu. sunu bàkkaar. diine juma bagga. diine juma min allah. diine juma bagga. diine juma min allah. moo ma jàngal dagga.

jaamu ko moom rek ndax amul morom Allah jaamu ko Allah kon bisu penc yaw di nga raw kon bisu penc yaw di nga asamaan Allah Nuux bind qawmu Lut Allah moo bind Nuux aha bind qawmu Lut ashaabul uhdud bind na Maaruut su ma nee tàgg maa ngi leen di wax allah akbar ci kaw foo ma dégg dégg ngeen pare ngeen pare ngeen dégg ma sa sa baax pare ngeen takbir nekkul wala wala dégg nga yéen a ñaan dégg ngeen wax dëgg xaaral lay wax yéen yéen a ñaan te àndoo leen xaaral ñëw si ñii yéen yéen a ñaan yéen nekkee ko rek waa deuxième groupe nañu préparé waa deuxième groupe nañu préparé waaye kii kan la andal kii ku mu andal xamoo ko ana yaayam ana yaayam maa ngi dem yaayam mi ngi noonu yaayam mi ngi noonu mu suure nga xamante ni moom la ñuy boo amee lu lay metti tari ko nga raw ko fa lay metti nga moccee ko loolu am na solo trop kon dañuy dem ci animation ñu woo maam Ngoné Cissokho waa sketch nañu préparé ñu war a defar sketch nañu préparé maam Ngoné Cissokho sant la war na jaam bi fu ñu tollu di la ñaan rabbi alhamdulillah sant la war na jaam bi fu ñu tollu di la ñaan rabbi revanche ñëpp maa loxo yi taj taj alifun allah alifun allah alifun allah kat ak jaamu baun barrun moom aji baax la ñun ñi ñëpp jalla yàlla màgg yàlla tedd moom lanu bëgg daalum diinun laahi di lislaam moom lañu taamu sunu mën a dëkk haa un hayba yàlla raglu lu fi dee raglu mooy ki ko sàkk wa huwa waadut booleeg sàmm xaa un xaqun yàllaay dëgg ku fi baax rek kat moom ngay jaamu yàllaay karamun moom mooy may am ndax teraanga lii moo tax ñun dañ lay jaamu ànd ak moytoo def yeraange laamun lutufun wa huwa laatuy sag ñeewante lañu dee sàkku ni mun mulkun mulkullahi yàllaay burkat foo dem xam ko nuunun nuurun yàllaay leer kat asamaan si soodun suduqun dëggu yàlla lay wax kat ko changé aynun ilmun yàllaay luñ fi xam kat mooy ki ko xamle ñu ngi lay ñaan ñun xam-xam am am diineek dunya moom ngay faa un faalik yàllay aji xar pepp ak xoox muy sax daa un daw un daw u shamsi naajug jantay ñorloo sax sax qaafun qaadir moo am kattan moom mi fi bind yilekat mbindef raa'un rahma yaramaa kon la mooy lawal ku fi mar mbaakat ku xiif taa'un tawba yàllaay baale jëf lu mu tuubal dëgg saa un saa wap yoolub yàlla moo tax ñuy wax moo tax ñuy jëf zaa un zillun keru bisu penc yow del saraxe ngir ngay kerlu xoo un xuburun wa huwa xoobiir yàlla xerale cig wax ak jëf siin samoon allah wa huwa saami allah loo fi wax rek mu ngi koy dégg siin sukurun wa huwa shakur yàlla buur bi santa kon la alifun allah alifun allah alifun allah alifun allah alifun allah alifun allah moom mooy yàlla uh-huh. moom moo yelloo kat ak jaamu dem ci ñi war a jàngal askar avant de dormir ñoo waroon a ñëw balaa waa talabul ilm waaye benn la kursi jàng amana rasul ba mu jeex waaye tamit nga jàng qul wallahu ahad qul an rabbil falax qul an rabbin naas bu ci nekk ñetti yoon nga daal di wax ñaan boobu ñu xale yi léegi léegi am na yeneen ñaan waaye xaju maman. Merci, papa. Merci, maman. تكون mokki li ma soo amee doom jubanti gaaw balaa muy wees ndaxte xale garab bu tooy la soo jubantee mu jóg xamaguma ràññeeguma kon nag yar leen ma lislaam na ma màggee gërëm te bañ a Alhamdulillah. 122, 122. Oui, papa. Mais si tu pas. Eh, papa. Encore WhatsApp. ba ma la xaaroon ba tey dee naa ay nijaay bu ñu wax loolu kon nag xale yi joxe nañ message bu am solo dañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu ngi jamono joo xam ne jamono ju doy waar la jabale woon sax cin yaa ngi xam togg yaa ngi yàqu xale yaa ngi dagg seenu si ba ngir pot sax kon yal nañ yàlla subhaanahu wa taala barkeel xale yi yal na leen yàlla def mag te barkeel leen ah nee na sax bu am solo la ñu joxe dégg ngeen ñu jàpp si bu baax a baax a baax jazakumullahu xayran defal lu ñu mën ñun surtout euh, ci école bi parce que euh, boobu laa kenn dénkee doomam euh, du tolloog neuf mois donc baax na nga tànn benn jour boo xam ne dafay ñëw ñu natt ko ñu xool dañ doon jëmbat ci moom di ko jàngal ci ay jikko mais ci aussi ci xam-xam ak ci teggin ndax loolu mu ngi ci moom wala nekkul ci moom mais waajur bi nga xam ne jël na doomam ñëw dénk la ko ngir nga yar ko mais aussi def ci moom li nga xam ne mooy xam-xam dafay baax bu ko defee nga daal di euh, indi bés boo xam ne dafay wane li def li nga xam ne ma def ci moom voilà donc loolu mooy euh, bés bi ci gàttal. maaleykum ma leen di nuyu d'abord euh, man maay ci école bi ñu naan sama xol sedd na lool ndax ren gis naa ne organisation bi moom macha allah na yoon wàllum organisation bi la daaw dañoo nekkoon fu xaw xat tuuti mais alhamdulilah ren moom salle bi yaatu na c'est climatisé te wax dëgg yàlla parents yi tamit dal nañu xale yi tamit moom macha allah. loolu xam naa mbir la. motivé parce que ñun ñi nga xam ñoo yor jàngaleem islam ci ci yëpp doxal euh, bu ñu ñëwee rapport euh, ak li ko dali ak euh, taxawaay yi nga xamante ni jàngalekat yi def na day wane lu bare bare day ni école bi am na organisation day ni jàngalekat yi am nañ doom day wane ne direction bi dem am na fu bëgg a jëm ak xale moo tax lii buñ ko yóbbu foo xam ne ñi nga xam ñoo euh, dafa yomb mooy fexe ba tàggat xale yi ñaari arab yaakaar naa euh, ne ñoom koy doxale boo demee ci seen biir école bi xam naa yow xam naa ko ci biir école man man fay dugg xam la ci biir euh, lii bu amee dina moom dina comporte waaye dina dina dina dina boo xamante nañu beneen facette ne làqoon nañu tey laa ko gis waaw avant nekk mère yore projet di diriger nekk directrice ci école di diriger ay xale diriger ressources humaines yombul kon dañuy def rek li ñu wax dara lu dul rek jigéen ñi ñu gën leen encouragé parce que bu liggéey bu yomb bu liggéey bu yomb boo xëyee yaa ngi école balaa ngay liggéey bi mu la laaj temps bi la laaj déjà démb ñun bi ñu jógee presque 23 heures jot sa njaboot yaa ngi ko bàyyi sa kër mais nag loolu yëpp da nga koy programme planifier li ngay def bu dee da génn ko xool bu baax njaboot yan nga koy teg nooy planifier sa kër ba nga xam ne boo génnee du gànnaaw ko sa biir kër yombul moom yombul mais nag détermination la laaj boo déterminé rek yàlla dina la jàppale incha allah waaw pour l'instant waxagum lu sori parce que loo gis rek njëlbeen bi mën na normal ñu demee ba ci kanam nga gis yeneen yoo xam ne du la dañuy ñaan yàlla rek ni mu commencé nii mu mu jeexee noonu daal loolu la ñaan. li ma leen di li may dénk nit ñi rek mooy li may dénk sama bopp mooy jullit bi amuloo lu sa diine loo mënta jàng ci àdduna sa diine njëkkewul sa dundoo sa diine kon jàng boobu du am njëriñ jàng boobu am njëriñ dañ ñu ne nañ jàng ngir ñu suñu borom xam suñu diine naka lañ koy jaamoo naka la ñuy jaamoo yàlla kon bu dee da nga jàng àdduna xamuloo sa diine parce que jàng boobu dama naan du la du la njëriñ kon yàlla daf ñu sàkk may ñu àdduna ba pare dañuy jàng suñu diine en même temps jàng suñu àdduna loolu la il faut dañ wax suñu ak dafa jël ay doom dégg ko yaay ak papa kon war suñuy waajur daf si xale yi bu ko ak ñoom mais bu dee li li war li war ci xale yi defuñu ko ah aduna fii xale yi dinañu ji ñu màgg ci seen morom yëpp teg ci seen aduna teg ci seen diine xale yooyu dinañu ji dinañ naan jaay wala pap foo nekkoon bii nit ñu baax ñi doon seen i njaboot yow foo nekkoon kon yaruloo xamuloo ak yéen àllaaxira nag moom moo doo xale yooyu téye ne kon ne sànku ci ak bésu àllaaxira yow samay waajur yéen a ma ko teg kon sa ajana mënul taxaw dunul li la war ci sa njaboot nga def kon ñu gën a góorgóorlu si njaboot ñu gën a te yàlla dinañu laaj responsabilité ba tey li may wax rek laay waxaat nañu gën a góorgóorlu si njaboot nañu gën a góorgóorlu ñooy suñu àdduna ñooy suñu àllaaxira nit ki sa doom mooy sa lépp te sa nawle la li war si yow boo lekk war ko jox mu lekk boo naanee war nga ko jox mu naan fi ngay tëdd lépp loo xam ne lu lu baax la ci kaw suuf war nga ko mën a defal sa njaboot fekk nag du ci du ci du ci yàq du loo xam ne laa doon yàq si si mais daal njaboot bi nawle la nañu gën a góorgóorlu si loolu daay ñaar parents yëpp ñu gën a taxaw seen njaboot bañ a démissionné boo démissionné tey si sa njaboot suba ñoom it ñu démissionné ci yow ndax boo màggetee ñu yóbbu la si maison des retraités fa lañ lay sànni toog ay weer bu ñu xëy na loolu sax amu fi mais mu ngi am sax ndax léeg-léeg say doom ñu ubbee seen appart bi bàyyi la ci kër kër bu mag bi balaa nga leen gis bu yomb wala sax dara du la manqué mais nag cofeelu doom daf lay manqué. cofeelu doom wala yërmande bi doom war a dawal ci ay waajuram loolu doo ko am te yow yërmande boobu da ko da ko jox sa doom ba mu mag màgg tey mu démissionné ci yow kon ñu xam ne loolu naqaru xol la boo xam ne amul foo koy jooyee amuloo garabam kon ñu gën a góorgóorlu si njaboot ñu gën a góorgóorlu dana muslim mu ngi la jaajëfal. jërëjëf sa taxawaay tey si bés fekk yow nga jiitu. soxna si